merci am amis fidèles internautes yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel à travers Dakar Buzz yéen ñi nekk ci réew mi ak ci bitim réew dal leen ak jàmm Abdou Saliou Seye euh, may siyaar képp koo xamante ni yaa ngi ci biir réew mi di leen ñaanal jàmm ju bare bari di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ñu dem ci élection jàmm ak salaam ki la que le parce que réew mi réewum jàmm la yaakaar naa ni loolu lu mata bàyyi xel la waaye nag tey ma toog ak daanaan koo xamante ni ci li muy def euh, pour nga mën ko ci yombul waaye nag euh, mu nekk ci biir néegu seem toog jàpp njàmbaram di sëy xale bi ba mu commencé sëy ba léegi gisoo leen ko ci benn détail nekkul ci benn ay commentaires yu positif ak commentaires yu négatif mi ngi toog di gérer këram ay ma ko woowee téléphone dana maa ngi nii di toggu reer <laughs> sagar maa ngi lay siyaar delloo siyaar Abou Saliou euh, maa ngi nuyu mbokk internet Dakar Buzz yëpp mhm. di leen ziar di ziar sa caméraman bu baax bi tamit waa gis nga ñu ngi nii rek sëy bi di sëy rek di sëy sëy bu silencieuse. <laughs> sëy rek ba dee. rek ba dee. waaw sëy mooy dëgg ndax loo mënti am te amoo wéeru da dangay yomb bu max sëy da lay cadré nga toog stable jéem a focus ci leneen sëy day protéger jigéen. mooy sagu jigéen ndax ku juddoo ci famille boo xamante ne ay sëykat lañ boo sëyut da ngaa wàcc yoon. kon ñu ngi ci yoon bi. boo wàccee yoon yar bi faw mu dal. yar bi faaw mu dal la ndax famille sëykat laa bokk te duñ ma baal. Euh, waxtaan bi dafa mel ni commencé na de fa ñuy commencé waxtaan bi mooy euh, nga nekk ci série boo xamante ni àdduna wërngal këpp a koy seetaan muy famille sénégalaise ñu gis ci euh, ñu ci bari ci yéen ñi ci nekkoon tey jii dégg ngeen ay xayr yi est-ce que loolu tey jii dina mën a permettre producteur bi ou bien ki nga xamante ni moom moom boobu boobule série mu am suite. parce que yéen ñëpp ku ci nekk yaa ngi gérer sa yaakaar naa jot gi yu bare bari dootoo leen ko mën surtout nag boo xamante ni da nga am jëkkër ju dem ñëwagul bu ñëwee vacances <laughs> da koy toppatoo. waa dëgg la mais yàqu dara ci liggéey bi ndax xam nañ ni koo xamante ne nekk fi neex naa nekkal bu ñëwee tamit li war ci moom rek ngay def sëy bi sëy bi la liggéey bi liggéey bi la te boo nekkee góor gu la comprendre yaakaar naa fekk la ci li ngay def nawloo la ci gisu ci benn détail nekkoo ci daraay ñàkk fayda yomb na pour mu jàppale la sa liggéeyukaay empêché wuñu dara na seen xel daal troisième saison incha allah day am. troisième saison nu muy amee yéen ñëpp ku nekk dégg na alxayri macha allah. loolu la ñaan yàlla xam nga jànq boo gis xol ba boo ko xaree sëy na ciy fekk ci ku bëgg lu baax. yenn amul amul <laughs> amul sens. ci ku bëgg lu baax nga wax. généraliser wu ma parce que xëy na am na ñeneen ñoo xamante ne bëgguñu sëy wala dara loolu ñoom la na mais man en tant que man dama ne sëy mooy dëgg te maa ngi sëy te yàqalu ma sama liggéey ndax nekk naa góor gu ma comprendre macha allah. mais ñu gis yenn jigéen ñi nga xamante ni dañoo nekk ci milieu bi ñii euh, tey dañuy am jëkkër bàyyi. complètement seen jëkkër du leen mën a comprendre ñenn ñi peut-être dañuy am euh, seen jëkkër teg leen pression ba ñu mujjee abandonné maanaam li nga xamante ni moo di seen jëkkër pour jàpp ci liggéey bi est-ce que tu trouves normal que ni euh, tey jii sëy dañ ko war a yamal ak li nga xamante ni moo di liggéey bi. waaw ku nekk xëy na xam nga ki dugg ci sëy ñaan na yàlla jur fa ay doom ay doomam am fa ay jëkkër ñeneen ak ñeneen du dëgg sëy nag fu ko yàlla tuddee rek fa lay amee et que bu jeex waree jeex rek day jeex mais sëy ak liggéey man duma ko tëkkale wax dëgg fa yàlla ndax sama sëy bi moo ma gën a lépp lu ma am ci àddina ça dépend nag ci góor gi ngay nekkal mhm. bu la comprendre rek mu neex mais bu la comprendreul tamit ngeen jéem a négocier mais bàyyi bàyyi euh, sëy bi ndax liggéey bi non non duma ko def ba ici repose maak sëy bi ak liggéey bi rek parce que nekk naa góor gu baax gu mhm. ma comprendre si sama liggéey ndax gis na ni man li may def dama ko bëgg passion la si man mhm. loolu am na solo kon xale yi yaakaar naa bu ñu nekkee ci biir néegu sëy bëgg a gérer sëy beeg liggéey bi war nañu jéem a xam lan mooy li nga xamante ni mooy li priorité ñu koy ñu koy def euh, tey ci biir série bi nga xamante ni ci nga nekk di ko jouer du ñàkk euh, des fois euh, nga dégg ci wax joo xamante ni du la neex wala commentaire boo xamante ni bu bu négatif la tey naka nga koy dundee ak ki nga xamante ni moo di sa borom kër. waaw moom xam nga rek boobu bu déggee dara sax day reetaan. xanaa ba dégg nga li ñu wax li yëg lii ree buy bëgg a dee maree parce que xam na ki mu nekkal man amul dara lu ma ciy déranger parce que man bu dul liggéey bi nii kenn du ma gis fenn depuis ba may célibataire nag ba tey maa ngi toog sama kër yàgg ngeen ñëw di ma jël si interview fréquenté wu ma kër kenn de ma kër kenn ñi ma daan àndal démb ak barki démb ba tey ñooyu samay xarit samay ami d'enfance changé wu ma toogaane jëw ma reere jëw ma fenn bu ma amee envie génn dem resto laa dem dëppaat toog sama biir kër depuis ba may jànku ba tey ñi may liggéeyan dool sax waa Pikine suñ ma gisee contrat moo tax ñu gis ma seen bureau su fa jeexee ñoom dañ koy wax sax écran bi rek lañ lay gis parce que liggéey bi liggéey bi la suma ma liggéey wàcc damay dëppaat nekk sama vie de famille loolu lan moo koy may actrice parce que gis nañ ci actrice yu ci bari après ay jet set la ñuy doon euh, ñii boo demee ci boîte yi yaa ngi leen fay fekk ñii soirée soirée ñoom ñoo koy toj xew moo dem fekk leen fa seen image la tee loolu euh, maanaam euh, toog gi ngay toog jàpp sa njàmbur loolu lan moo koy may jigéen. waaw xam nga kon kenn ku nekk accessoire ndax boo màggee say parent avant ngay màgg def nañ ci yow éducation de base def nañ ci yow ay jikko mm-hmm. xëy na nag boo màggee yaay changé opté lii laa bëgg a def. man nag nii laa yaroo ñun suñu kër amuñu de amul dem fenn ñun ñëpp dañuy toog ci saal ba waxtaan déraaye ba na xam suñu yaay boo ñëwee danga naan kii seen moroom la xanaa. Mm-hmm. parce que dañuy kalante en tant que Guèye ak euh, Jaw kalante doomu nijaay ak doomu bàjjen kafre xamuñu dem fenn ba ci ñu góor ñi dañuy dajaloo toog man man rek maa ciy génna dem di feeñ tele mais ñoom feeñu ñu tele daayira rek la ñuy topp ay waxi sëñ Tuubaa rek la ñuy topp. waaye man moom xam nga damaa bëgg liggéey te aar bi dama ko bëgg bu fekkee ne spectacle laa dem su jeexee ñëpp si naa sama kër à part ci kii bi duñ ma gis fenn maa ngi toog sama kër te loolu du jëkkër moo ko def si man dafa nekk ci man parce que bëgguma détail xale jigéen ñenn ñi dañoo foo da ngay ànd ak ñoom tey suba ñoo lay waxal wala ñu sosal la. ma doon wax barki démb de sama live ma doon def eh, boo amee borom kër na nga xaritoog ki nga xamante ni mooy di sa borom kër parce que moom loo ko wax dina la ko sàngal eh, wala nga xaritoog ki nga xamante ni moo di sa yaay mais da ngay gis koo xamante ni day sëy eh, am fukki xarit juróom-ñeent est-ce que tamit loolu dina tax sa sëy gën a neex parce que détails yi ngay gis yëpp ak ñi nga xamante ni ñoo am problème seen biir néegu sëy yëpp seen xarit dee ko waral waa xam nga li Youssou Ndour naan xarit tur bee am bayre rek waaye ñu ci bari ay àndandoo lañ man sama xarit ñi nga xamante ne ñoom laa màggandoo ñoom laa fondool ba dara dul dara tey du ñooñu ñooy génn di wax si man. Mhm. parce que xam nañ maay kan ma xam ñoom ñooy kan ma jox leen cër ñu màggandoo yarandoo léegi nag jot amatul ku ne mi ngi focus ci loo amal sa bopp kenn dematul kër kenn man sama yaay moom mës a nekk sama xarit. sama yaay foofu fekk ñooy ànd suñu waa koñ xam nga lu ñu tuddee magaraq dañuy lonkoo di ànd ci mbedd yi mhm. à loolu sama jëkkër mooy sama xarit. ak sama yaay léegi amatuma beneen xarit sama xarit yi nee naa leen dem leen toog <laughs> dem leen jàpp seen ñaam ma sama jëkkër mooy sama xarit sama complice la lu may dugg dinañ ci waxtaan ni teg tous les détails kooku xam nga macha allah bu ñu yàlla bàyyi ak suñu xel rek du ñu réeroo waa kay ndax loo lu may dugg lu ne su may dem boutique bi sax dama naa ko boutique ba laa jëm mu ne ma d'accord xelal ma boo demee defal lii defal naa kooku loo leen di jotee nañ ñu bàyyi ak suñu sago. <laughs> Euh, mais tey nga tudd euh, sa waajur bu jigéen euh, ma dégg ñu ni histoire bu bu bu nice ngeen am maanaam complicité bi nga xamante ni am nga kook sa waajur lan moo koy indi te jamono d'habitude yéen ñi nga xamante ni ay star ngeen ñu ci bari bu ñu xawee commencé feeñ ñaari yoon ñetti yoon dañuy génn seen kër papa ñiy jëli ay appartement ñi uti chambre bu ñu luyee juste parce que succès bi ñëw na est-ce que tey loolu dal na la. non mosuma daal. musuma daal parce que euh, li nit ñi di daw di uti jege woon na ma te fooyewu ma ko parce que bi may nekk sama kër yaay ak sama kër papa ñun ñëpp ñoo fa nekkandoo woon samay mag sama mag bu jigéen bi dafa nekkoon sama meilleur ami ci moom laa topp léegi moom bi mu demee bi muy dem waaj a dem Europe ci jëkkër ji dafa ma ñëw jël këram jox ma jox ma appartement defaral ma ko ba mu baax ma yor agence immobilière moom moo ma jàngal nu ñu yoree agence ma nekk biir këram mu dem bàyyi ma fa su ma xëyee bu ma liggéeyee ba pare damay tëj dem sama kër yaay añi ji ba suur tëdd moom mu fay yóbbuwaat dérangé wu ma ay appartement yi deuxième la parce que ci kër famille laa yaroo sama yaay ak sama papa ak samay mag kenn génnu ci dem ji luyee ji waaw tey tey xam nga art artiste nga euh, te di nga dégg des fois ñu ni la ñu ni la jigéen ñi nga xamante ni dañoo nekk ci mille bi ñii dañuy volé ñii dañuy suus ñee ngay trap ñee ngay def leneen du leneen des fois ngis ci ay actrices yoo xamante ni ñoom ñoo dëkk ensemble ñooy defandoo seen lépp euh, ñu ci bari sax des fois ñu jiiñ leen ay mbir yoo xamante ni mooy loolu est-ce que loolu mësula arrivé nga dem ci kër actrice boo xamante ni yaa ma gën a xam. déggoo ma ne la dew kër kenn. maa ngi sama kër man ay ay volet ay suuf ci internet bi laa ko déggee man xaw ma luy volet. dégg naa yéen artistes yi da ngeen di suuf. <laughs> xëy na ak ña koy def man xaw ma luy volet ma luy suuf damay dégg nit ñi di ko wax ma toppaat si man ab saali mun <laughs> wan man suuf nu muy mel. bu ma la ko wanee ñu jàpp ma da <laughs> yow mi ko wax wan ma nu muy mel man damay dégg suus rek xama man dee moo fenn man bañ na xam jar la maa ngi sama kër toog xama lu ma xam. nduggi maase togg sama ceeb bu baax naan teg sama léwal sama deuxième waaw nii de laa xam togg añ togg sama reer lekk ba suur naan samay bisaab wala sama jinjeer yenn yenn boisson yi sax duma ko naan bañ na ko ba voleeg suus moom dégg rek laa si am yàlla xam na ko sa sa digganteeg sa yaay parce que da nga coo dugg mais da nga ko da nga ko kii da ko off bref ko waxtaan ci sa ci sa sa mag bi euh, lan la sa yaay def ci yow parce que euh, à chaque instant ci say waxtaan wala bu may xool sa story dañuy gis ni da nga am amour bu mat sëkk ci sa jur bu jigéen. waaw loolu moo ko def ci ñun ndax moom xamul ku dul ñun euh, ñun xamuñu ku dul moom guddi bu jotaan sama papa day toog nii sama yaay toog na ñun ñu toog na ñun ñëpp ñu bokk di waxtaan éducation de base nag du ci école lañ koy jàngalee ci famille la nga judd xool say mag yoon bi ñu jaar nga jaar ci xool say yaay fi mu ne nga ne fa ndax doom bu jigéen jarul muy uti feneen royukaay yaayam mooy royukaayam te sama yaay ku ma naw loola man dama ko naw damay toog ba ci yàgg ma ne kii ndax du wàlliw ndax xolam sama yaay nit da koy def lu ko metti sax man maa ci nekk di mer moom pare na ci bu yàgg bu ci mer pare na ci xol bi dara nekku si dama naan kii ndax du wàlliw ndax xolam bu rafet ndax bëgg doomu aadama ndax yërmande gi nekk ci moom dama daan liggéey ba waa tëdd ci wetam da nga jékki-jékki gis ko mu naan ma nii di ma bës di ma bësa sama tànk damay ree ba sonn ma ne moom daa yaakaar ne xale laa wala nit <laughs> ma tëdd néegam di wax nit di wax rek ma tiit ne nii muy muy tàpp tàppal nit ñi di ma ree ne sa yaay liir la la def parce que waa dafa ma bëgg ma bëgg ko te man aw ma ko dul moom ndax bi ñu màggee xàmmee ba tey moom la ñu xam ak sunu papa keneen ku ñëw léegi nga ñëw rek waaye moom la ñu xam mook sunu papa wax dëgg fa yàlla ak samay mag yu baax ñu bëgg ma damay boo ñëwee kër ga da nga naan kii du seen caat ndax yab gi ma leen yab samay mag comme samay doomu bàjjen lu leen laa leen di wax dañuy ree rek mais tey euh, milieu bi nga nekk bi nga ci door a dugg euh, ndax am woon ay jafe-jafe ak moom ak ki nga xamante ni moo di sa jur bu góor euh, parce que milieu la boo xamante ni boo ci dee dugg lañ lay njëkk a gëmloo maanaam mooy milieu bi dafa bon dafa am ay dafa bëri ay obstacle yoo xamante ni moom moo ci nekk est-ce que tey avant ngay commencer paa beeg mère bi accepté woon nañ. waa commencement bi man ragaloon naa tàggoo parce que c'était en 2011 maa ngi am 13 ans. et ma gis ñoom Baye Abdou Diobaye sama frère boobu ñu ñëw fii suñu wetu koñ joué fa spectacle bu neex ma ne ko Baye Abdou lii bëgg naa si bokku de nu may def mu ne ma ñëwal ma boole la heure bu ma jël see tombeeg justement ak sama yaay ñu ngi toog ndax du ñu tàqale ko mu <laughs> ñëwee bintu nañ dem ma ne ko Baye Abdou dema rek dama boobu maa ngi sóor sama yaay xaw ma lu muy lu mu may dikkee mu def ko trois fois sama yaay ne ma kii ci la la lay woo ma daan koy expliquer mu ne ma demal chaque jour mu jël si te doo ñëw te Baye Abdou yaayam ak sama yaay ay xarit lañu woon mu ne ma demal ma daal di dem boobu sama papa nekk fii mu ngi voyage léegi nag bi mu ñibbisee fekk ma tourné benn cassette figuré ci <laughs> mu ñëw rek sama mag bu jigéen bi antax xam nga dafa doy waar kooku daal ne ko nii Bintu de léegi day joué théâtre génne nag kaset sama papa nag dama koo ñemewul ma ñëw mu ne ma dégg naa da ngay joué théâtre ba génne cassette ma ne ko waaw waaye boo bëggul rek ma bàyyi <laughs> damaa tiit ma ne ko waaye boo bëggul rek ma bàyyi mu ne ma boo ci góorgóorloo di nga dem ma ne ah alhamdulilah après ci daa continuer di dem mais amul dara loo xamante ni yàqal na ma ko parce que euh, et boo déggee fépp àdduna bi nga nekk sax am na lu baax am na lu bon yow yaay màgg xàmmee xool yoon bi nga bëgg a jaar rek nga jaar fa fépp am na bon mais jomb bu nekkee ci yow abu Saliou doo def lu bon ko jomb moo am important jomb moo mooy yëfu gor ndax tey dañuy voyage yi jëndi bagage dëkk ak dëkk daaw ñu gis yaay foofu duñu gis papa mais lim ma daan wax amal jom xamal sa bopp xamal famille bi nga bokk dafa mel ne tey la ma ko gën a wax te def na 11 ans xuma 12 ans ci suuf kon jomb moo ne ci man utuma àndandoo feneen ma ut koy changer sama jikko nit mënul changer sama jikko bonal téeméeri junni yoon sama yoon nekku si li ngay def man li ma nekk moo ma ñor moo ma concerné wóoruma bon ci nit ndax loo xool ci koy gis lu waaye def loolu nga choisir yàgg yàlla la nekk ma fi di juger kenn mais man li nekk ci man laay xool muy valeur yi nekk ci man nga xam sama papa def na ko ci man bugguma mu réer benn yoon ndax tey ku fi màgg dañ naan liggéeyu ndeyam la kon sama yaay liggéeyul lu bon du ma jéem a def lu bon mukk euh, sa way waajur def 11 ans ou 12 ans ci biir suuf euh, di nga toog mu nga am benn vide boo xamante ni daf lay manqué nga tëju sa biir néeg yow kese nga ni tey ji su mënoon a gisaat euh, suma waajur dinaa ko gën a jaamu. waaw bari na li may arrivé parce que su ma tourné ba pare ba téye sama kase dinaa jooy parce que xam nga tax daf ma ci ñaanal mu waroon ci fekkee sama njariñ ma soxla woon ko trop. événement day jot dafa may manqué parce que dama ko takk ni ma taqee sama yaay ñooy añ par dimanche maa moom la ñuy boole lépp daraan nëbb xaalis ni ci ginnaaw ndax bañ ñeneen ñi gis ko di mer moo ma koy jox tey loolu ma bugg koo fay te gisuma ko lépp dama koy dajale jox sama yaay ndax moo fi sama yaay moo fi sama papa sama papa dem na de mais jooyu ñu papa ndax moom samay rakku papa nekk ku baax tamit lu xew xewle lu xew ci kër gi di dinañ teew lu xew ñu ngi leen di gis kon kenn du ñoom jooyuñu papa xam lu ñu def di ko ñaanal rek. sa papa lan ci yow parce que euh, waajur doom bu ci nekk sa sa sa waajur mooy sa gàllaaj euh, yaa ngi koy wax nga nii da ngay liggéey ba tey sa cachet sa xel du dem ci kenn ku dul sa papa parce que ni la daan ni la daan taxawoo la euh, la lan lan nga dund ak moom lu extra parce que waajur dafa sori ci doom. waa dund nañ ay moment yoo moom rek lañ doon gis Abou Saloum nee naa bu lañ xam lu bari lañ xam ñu bari. waaye bu ñuy nekk xale sama papa sama yaay rek lañ gis gis ñu woon kenn muy sonn ndax ñun muy daj lu ne ndax ñun lu mu yor njaboot la ko defal bañ na ba sunu koñ dañ naan seen papa da leen yàq événement bu am nga gis mu tegleel ñu ay keesi keesi boisson ginaar yi dara du manqué lu mu liggéey yóbbuwu ko fenn njaboot la ko defal kon li mu doon def ci njaboot yàlla na ko yàlla defal lu gën fu mu tëdd yàlla na ko yàlla xare aljana ak bépp wayjur bu dem te kii kii fi des sunu yaay ji yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér ngay njoora metti na te dawoo gisoo kenn nga toog ci sa njaboot yi xam nga yaay ju ne am na ñoo xamante ni day metti ñu daw bàyyi seeni doom ñuy toltolaan waaye daa metti mu gën a toog kon ngay luñ la defal jomb la génn foofu damay bañ nga <laughs> parce que euh, gis naa bët yi mi ngi commencé taa mais xaaral ma génn foofu mais nga nekk ci famille sénégalaise euh, macha allah seen diggante rafet lool ñu gis bi Marietou euh, di am borom kër ak keneen ak keneen di am borom kër nga def nga defat def teewaay tey yan lien ngeen am wala yan rapport ngeen am. waa lien bi mooy famille lañ. ñun parce que ñu dëkk presque un an chaque année nga dëkk ak ñooñu presque un an muy deux ans et quelques. kon ñooñu sa famille lañ parce que li nga passé ak ñoom passé wu ko ñeneen temps bi nga passé ak ñoom ñu am ay relation yu baax parce que euh, nit ki boo leen amul relation bu rafet bu xewlee doo ko gis mm-hmm. ku ne xam na ne sama xew dafa ñëw toog ba mu tas mu doog a dem mm-hmm. kon lii rek lañ ko mën a faye ñëw teewal ko ci bisam ndax nit amul lu dul bisam mm-hmm. ku la teewal sa bis sa xol day sedd ndax ku geesu gis sa moroom rek dafa am leneen lu muy def ci ñun yéen relation nga am ak Bator waaye relation yi ma am ñëpp rek laa am ak moom mu nekk ku baax mu nekk ku mën a muñ. Mm-hmm. mais est-ce que yaa ngi yéen a ngi déggante parce que ci ci réew mi fan yi gis nañ ñi euh, ñi ngi wax naan soxna Bator day moom day dox rek loolu la ñuy loolu la ñuy wax soirée soirée ñu gis ko fa mariage au mariage ñu gis ko fa concert au concert ñu gis ko fa. non nañ bàyyi jàmbur liggéeykat la day liggéey dafa nekk ci yoon liggéey rek moo ko fa yóbbu foo leen ko gis ak liggéey ko fa yóbbu. Mm-hmm. relation bu bien lañ am démb rek ñu ngi déggante. macha mm-hmm. euh, xam naa fi ñu tëjee waxtaan bi mooy Sadio Mané dafa takk jabar <laughs> réew mi yëngu lool ku nekk di commentaire Sadio lu Sadio ñu ngi doon xaar mu takk jët sa sa Sadio ngi doon xaar mu takk xale buy feeñ ci TikTok bi Sadio ñu ngi doon xaar mu takk influenceuse mais Sadio daal di njuy sénégalais yi ak xale yu jigéen ñi nga xamante ni tegoon nañ ci moom bët euh, sànq ñuy waxtaan avant émission bi di commencé nga ni ma Sadio Mané doful te góor danga ni ma sax góor dofuñu ndax buñ dee takk soxna dañuy dem loolu yaa ma koy waxal parce que su ma ko waxee day mel ni dama jaxase damay damay damay damay jaxase. xel <laughs> waa ñu ngi koy ñaanal rek ah heure ménage di ko wax ni yàlla na sëy bi barkeel njaboot gu barkeel tegu ci moom Sadio Mané mais noonu la ku nekk ki nga bëgg xam nga yow booy takk jabar da nga dem tànn ki nga bëgg waa mi ngi noonu moom daa tànn ki mu bëgg kon nañ leen bàyyi ñu sëy. waaw mais mu def le bon choix mais ñu ci bare ngi critiquer. ay xale bi posul ongul xale bu Sadio boroon naa takk ku dàq kii Sadio nii Sadio naa waa xam nga am jot baaxul ndax boo amee jot de trop da ngay lijjanti lu bari jot bi nga def di lijjanti pose na ongle walla takk na or wala takkul jamaa def ko ci liggéey ñu fay la nga jariñu ci nañ bàyyi commentaire yu négatif nañ uti lu ñu def des fois nit commentaire loo xamante ni dalay leer ne yow defoo ko li mu ni commentaire de mais fa mu ko metti nañu uti xëy gis nga maam Ndiaye Savon wan na xale yu bari yoon bi nañu liggéey boo yoree sa ñetti parfum sax toogal taal sa direct nga jaay mu jar subaa nga dem jënd leneen boo ko dee def doo am jotu kenn jot daf jot baaxul. jot baaxul mais est tamit nekkul nii maanaam euh, dañ doon xaar Sadio génn feneen. ci ci ci parce que ñu bare ngi doon tudd ay relation ak diw relation ak diw Sadio indi foo génn foo xamante ni peut-être ñu ci bari xaaruñu ko woon. mais loolu loolu ay ay wax la rek parce que kenn ku nekk booy takk jabar di nga xool ki la bëgg nga takk ko. du dëgg am na ñoo xamante ne nag dañ leen di jiñ naan diw kii la xam nga rek ku amagul jëkkër moo ko amagul jabar ñoo yam dinañ la waxal lu ne mais yow yaay xool ki nga bëgg man pour man jabar sëriñ kenn du ko taanal kenn. mais est-ce que tamit nekkul ni xale yu jigéen ñi tamit dañoo dañoo dañoo dañoo pareetul pour sëy parce que ci yenn commentaires yi boo koy xool euh, ñoom ay waxu million la ñuy wax ay waxu CFA que que Sadio Mané c'est un milliardaire euh, tey jii waroon naa mën a def xew moo xamante ni àdduna bi yëpp ci teg seen bët. waa waa loolu choix la rek xam nga ñun ñi boo xoolee ñun pauvre rek ñoo bëgg xew bu rëy. million milliard ci yam nit nit la rek ndax Sadio ki ko jox du milliard nit ki noppam milliard jënd ko jabar la takk soxna soxna sax la takk takkut jabar kon dofut ay millions yi amul important sëy ak milliardaire jur doomu milliardaire da koo gën ndax loo fa xaar du dafa fekk sëy ak milliardaire jur doomu milliardaire koo gën wax sama yaay <laughs> du alal sëy du ay million sëy du ay milliards sëy mbëggeel la lal dafa xat ko bëggul mënoo ko bokk ak moom tamit du xale yi ñoo toogatul seen peggu seen peggu yaay yi tax euh, des fois euh, yenn yi sonal leen. noo xam nga lan la euh, toog sa peggu ndey ak toog feneen a ci yam ku nekk ki mu bëgg. nit mën nay taxawaalu te kenn gënu ko daa amagul ku ko dëpp rek. loolu la nit boo bëggee nit dalay jaral am na ñoo xamante ni kuy taxawaalu kooku lañ bëgg recadré ko aka ñooy mën sëy boo leen tegee ci ruq dañuy sëy ba dee. nit mën na nekk seen kër réglé demul dikkut waaye boo ko tegee sa kër mu génnaat. Euh, am na benn vidéo bu ma seetaan avant may ñëw bi ñu lay jour bi ñu lay takk euh, ngay ngay ngay ngay ngay ngay mel ni kuy kii di di di jokkar bi mu seen naan ko euh, xaw ma lan ak lan ak lan ak lan ñaareel beeg affaire yi. <laughs> jokkar bi ma kenn am saa mais mais mais monsieur monsieur tamit monsieur monsieur kii monsieur. <laughs> <laughs> looy ragal wala wala. ragaluma dara xam nga ne duma ma ragal. sa fii sa territoire la. sama territoire la waaw sama territoire la maa ngi monsieur jusqu'au bout maa ngi moom rek. ah monsieur daa signé benn ni benn la war <laughs> man ñaareel laa waaye maay aaw maay ñaareel maay ñetteel maay ñeenteel. mais fan nga teg loolu. bëgg ku jéew ma damaa bëgg rek mu bëgg ku nekk sa côté ngay lijjanti. mais boo ñëwee nga doon nga jël deuxième daam. ba pare nga bëgg occuper place premier bëgg occuper place troisième ak quatrième y' a problème. waa loolu mooy tëj nañ bunt yi kenn du duggaat. <laughs> wóolu sama bopp rek ban xale mooy dugg ci man. maa ngi xaar ba benn débutante xool sama jëkkër. <laughs> xale yee ko moom dañ ma sonal si TikTok bi waneel sa jëkkër waneel sa jëkkër mais maa siiw man ngeen xam yem leen si man bàyyi leen sama jëkkër. kon kaay ñu ngi lay demandé nga wane monsieur. dañ ko mpa rek. bàyyi leen ma maa ngi sëy. Ah, taa nag mën nga leen a may seen ñamu bët. dee déedéet may mu benn xale dara xale yabuñu ma de damay dóore. mais euh, tey réew mi ku ne xam na ni ñu ngi waaj ay élection et que ni euh, Sénégal yu bare nga ci am njàqare euh, boo amee message booy lancé ñi nga xamante ni ñoo ngànk réew mi ak ñi nga xamante ni ñoo di opposition bi lan lay doon. waa ñi dal rek ñi def ko ak diplomatie benn dégât bañ am et ki gën ci réew mi yàlla moo ko xam yàlla na ko fi teg ki nga xamante ni gënul ci réew mi yàlla bu ko yàlla jox réew mi ndax ñun jàmm rek lañ xam jàmm rek lañ bëgg bu ñu sañoon senegal naat jëm ci kanam bu ñu kenn indil fitna ki gën ci réew mi yàlla na ko fi yàlla teg te mu gën ci moom xale yu jigéen yi lan leen di dénkaat euh, parce que ci at mu bees mi ku nekk ngi naan ay première dame laa bëgg doon deuxième dame laa bëgg doon ñoo xamante ni euh, dañuy topp jëkkëru jàmbur yeeg yooyu noonu rekk lan nga leen di dénk waa sa bés ko sax. <laughs> ku xam <laughs> mais yal na leen yàlla may li ci ñoom li wër parce que taaru jigéen mooy sëy et buñ ko amee yàlla nañ ko téye te buñ ko téyee yàlla nañ fa njaboot. Mhm. sénégalais yi. xanaa kontaan si ñoom nag lu may wax ak ñoom lu dul xaar leen troisième saison. troisième saison bi lan lan lañ fa mën a xaar lu extra lu ñu lu ñu gisul ci deuxième saison bi. waa xam nga dañoo def première saison ñëpp naan boo ñu defee deuxième lan lañ fiy teg ñu ñëw deuxième bi gën a tee toj. ñu dëbb ko ba mokk ngeen ne nañ xaaraat trois ñu ne leen xaar leen troisième ngeen ne lan lañ fiy teg baay leen ba boobu dina metti dina yàgg. Ah, <laughs> nu mu tudd sax Ndiaye nan Ndiaye Alioune Alioune Ndeye Alioune Ndeye macha allah boobee baax de te dafa xam fa ma fa muy képp Sénégal waa waaw borom baax la Alioune Ndiaye borom baax la parce que lii yëpp boo gisee xol la ndax ku xool famille sénégalaise xam ne moom xol la ciy demee mu mosuñu tourné xaar mu ne nañ ko delloowaat wala mu àbb ko day jënd ne rey leen ngeen lekk amul tournage bu muy tourné xar fii ci famille sénégalaise dissimulé parce que nee na rus na dugal xar mi génneewaat ay añoo la ñuy lekk teg ñu fu baax nag macha allah bëgguñu mm-hmm. man ak moom nee naa suñu relation dafa weesu liggéeykat ak emploi euh, employé ak patron mm-hmm. parce que sama nijaay sama lépp la ndax lu ma xew la dama geesoo dama koy gis. Mm-hmm. lan koy dénkaat ci at bu bees bi. waaw at mu bees bi di ko ñaanal rek projet gën a jëm ca kanam Pikine gën a yéeg. waaw yàlla may ko gudd fan ak weer lu mu mën ren yàlla na mën lu ko raw déwén. yaa ngi ma bëgg dugal waaw baax na bu ma vulgaire loo. <laughs> ah non da ngay tàggu monsieur faaw nga tàggu monsieur. monsieur Mbaye moo baax rek moo gën dama koy sant di ko gërëm parce que lépp moom la moo ma yombalal sama liggéey et bu ma tegoon fitna xëy na du ma yegg si fii. découragé naa bu yàgg mais macha allah yal na la yàlla lafal cat yàlla bàyyi ñu ñu am njaboot gu barkeel barke Cheikhul Khadim parce que sa xol rafet na baax nga. non duma ko jooyal ah, waaw je suis <laughs> voilà mi ngi noonu jigéen la joo xamante ni jàmbaar la wooy si mi ngi bay waaram ci li nga xamante ni moo di euh, milieu bi euh, doon koo xamante ni bëgg gi mu bëgg Serigne Saliou waaye bëgg gi mu bëgg Cheikhul Khadim ak maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Mouridina kon jekk bàyyi Lalla Fall Amat Fall Cheikh Ndiaye euh, man moo tax mu fonk ko te aussi tamit doxul ci daray caaxaan mu ngi ci ay business am jàpp njàmburam toog di gérer borom këram yàlla la sunu borom gën a jubooleeg moom ci barke Seydina Mohamed may leen njaboot ju barkeel di ñaan ci réew mi yàlla fi yàlla def jàmm xamante ni moo di Seydouna Mouhamad le grand caméraman Rasoul maa ngi lay char di la ñaanal jàmm ju bëree bëri moom bëgg gi mu bëgg Cheikhul Khadim moo tax ma nag moom ñu mën a ànd di ñaan ci réew mi jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm suma yaay ja maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddul fanam ak suma papa di ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi topp Dakar Buzz ak képp koo xamante ni yaa ngi topp Abdou Saliou Seye merci beaucoup jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw te wóor kàppe la waaw waaw kàppe deeg si